Fallou. jégal de jégal de. mouvement boo def eh, bul door bul door. eh bul door. Why you my I can't do it, asalaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay euh, présentement nag ñu ngi cees dundandoo ak yéen mariage bi nga xamante ni vraiment yéen a ngi koy gis ci réseaux sociaux yi muy jaar euh, Thiès ah nekk ci chérie Virginie Kati euh, donc ñu taxaw ki nga xamante ni nag ça va vous mais c'est la réalité c'est son papa dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyoo ak yéen mbokk internet yi sëñ bi ñu ngi lay ziar. waaw maa leen di ziar maa leen nuyu yéen ñëpp di kontaan ci seen teewaay yéen ñëpp ci bésu sama doom bi mm-hmm. waaw du lu vraiment. waaw kontaan ci yëpp vraiment di nuyu ñëpp ñoo xamante ne aussi ñu ñuy suivre ci si bi. mais xam naa ne question bi ñu posé moom la euh, internaute yëpp nar a posé wu. yow jaar c'est de la même génération nu mu demee noonu xale nga. non xale la du ma xale peut-être bon yàq bee tuuti rek mais du ma xale quand même parce que dem ba jege cinquante ans vraiment yàlla moo def sama bind ndaw rek mais du ma xale jaara xale la mais xam nga génération léegi dañuy gaaw a màgg mm. waaw man ak jaara nag depuis bi mu juddoo ba léegi sama doom la sama xarit la vraiment complicité bi am sama diggante ak moom dafa yàgg depuis que muy nekk seen petit gàlle am 11 ans maa daan ànd ak moom chaque prime ànd ak moom ci yëpp peut-être ñu bari sax xàmmee nañ ma ci Sidy et tout ça mais après par la suite xaw naa réer tout ndax li ma voyagé woon ak yooyu noonu waaw loolu daal moo tax mais. jaara sama taaw mooy sama taaw bu jigéen nag mais am na mag. am na mag aussi am na mag. mais bi nga toogee ñu ñëw ni la vraiment sa euh, doom dama ko bëgg a def soxna maanaam pour mu jugee sa kër dem ci beneen kër sa première réaction la la. bon loolu sant yàlla parce que aussi tamit nit tamit koo gis ku ne. loolu lay ñaan yàlla dund ba am sa doom vraiment ñu ñëw di ko bëgg loolu dañ koy sant yàlla rek parce que c'est pas donné à n'importe qui aussi surtout tamit mu doom doom boo xamante ne aussi tamit. doom bu yem si loxo la doom bu yaru bu déggal ay way waajuram réglé aussi que xam nañ ni jaara bon yàlla def na mu siiw euh, si le plan national su demee ba am na loo xam ne su ko doon def tey yaakaar naa ñun balaa ñu ci jot sax si di génne nañ ko dugal ko parce que toujours ngay gis ay rumeurs yoo xam ne mais yàlla suturaal nañu dimbale ñu ba ñoom moom ka moom ka muy magam moom mën naa ni yàlla moo leen yar daal. vraiment kooku dañ koy sant yàlla ci yooyu sax la ñuy taxaw parce que dañ daan dégg ay diw Ramadan sax da mhm. takk loolu est-ce que euh, amoon nga ci ay ay doute wala daan nga ci waxtaan ak moom non yooyu xam nga li naan siiw du jàmmi borom waaw nit moom bu siwee rek gis nañ tout le temps star fii nii tout ça ñu leen dugal ak yoo xamante ni parce que gars dañ ci wut ay vues man noonu laa gisee rek mais moom daaw ko du dérange ah même ma nekkoon à l'extérieur sax bu ma gisee aussi damay xam ni nit ñi ñooy créer rek parce que gis nañ fi lu ne mais yooyu musul am parce que jaara musul am relation première fois relation bi mu am bu sérieux mooy bii nga xamante ni kii ko bëgg tey moo ko takk mi ngi soog a bëgg pour la première fois muy waa Alioune Diagne ñu ko takk xam nga ba ma gis ni bëggante nañ aussi mu ñaan ma ko ma may ko c'est ça yu xale jigéen bu toolee kii non si jooy naa bien sûr parce que xam nga jooy bànneex la aussi tamit waaw sant yàlla rek Mm. mais sa doom ni mu suwee nii est-ce que c'est pas un pour pour pour mi nga xam ne yaay papaam. non du tout parce que ñun aussi tamit dañuy dund juddoo ci quartier populaire yaroo fi màggee fii xam nga am na loo xam aussi su amee tamit dañuy rester xam nga modeste comme toujours rek comme jaara noonu la mel parce que ñu bari sax dañ naan jaara dafa yëg boppam dafa kii mais non non moom dafa timide de nature noonu la mel dafa timide du sax sigi xool nit yàlla moo ko bindee noonu mu yaru waaw amul benn loo xamante ni vraiment nit ñi nag ku la xamul nag moom ee la lay wooye mm-hmm. c'est ça lan nga koy conseillé ci nga xam ne dugg na si étant jeune plus que taux de divorce yi léegi dafa élevé de trop mm-hmm. yan conseil ngay jox sa doom waaw no di ko ñaanal rek parce que aussi tamit damay def rek mu topp ci tànk yaayam rek bu nduroo yaayam rek moom vraiment aw ma leen lu ma ci tiit parce que maa yaayam depuis ñu xamante yaa gën a mu doon xale bi may takk yaayam boobu amul sax âge bi jaara am boobu ba léegi ni moo tax ay jaara ba ci magam ñu bari sax ba ci yéen sànq bi nga xamee ni maay papaam sax ñu bari mënuñu koo gëm da leen di jaaxal parce que da yaakaar ni suma sœur la wala ñu bari aussi loolu la wax sa mag yi wala sa lii tout ça mais loolu moom vraiment waaw sant yàlla daal waaw waaw waaw sa góor góorgóorlu di ko ñaanal aussi am yaakaar aussi tamit ci sëy bi parce que borom këram aussi kin ko may aussi am nañ yaakaar ci moom parce que am na loo xamante ni jàng naa ko ci moom gis naa ko ci vraiment xam naa ne daal moom naan sëyu xale ma mag ñi ñoo ciy jàpp xam pour mën a taxaw ne ñu ngi ci am yaakaar te yàlla bu yàlla tas yaakaar waaw vraiment moom bu leen jàppalee rek incha allah yàlla nag def taw ça j'en suis sûr et certain. merci beaucoup gars yi amoon waaw jërëjëf Père. je vous waa Lamine Mbaye waa Lamine Mbaye nee naa la yow foofa ma jàkkaarloo yow Yo con el malo